peut-être avant dernière question bi invité saison 2 bi dañ ci mën a xaar dina neex dina gën a tàng wala dina law parce que c'est yeneen yaa ngi ñëw de. no day neex day neex non mënul sedd Evenprod du def lu sedd yow. Mm-hmm. lu leer laa la lay wax. waaw Evenprod sax yow yaa ngi ñu fayee ko <laughs> <laughs> parce que Evenprod am na fi coow nag ne ñi naan acteurs yi naan nañ leen fay ñi naan fay ñu leen yow est que ñu ngi lay fay. ah ñu ngi sant yàlla daal. ah dëkkuma <laughs> ñu may fay ah ah non ñu non. non ameluñu ma dara franchement ameluñu ma dara ameluñu ma dara yàlla rek a tax ñu wax ameluñu ma dërëm bësu idole bi ngeen jël nag non jëluñu bësu idole hmm. Evenprod lépp famille la. lépp famille la waaw Evenprod moom moom Idole moom moom. Mœurs moom mais sorti sorti yi def naan fayuñu leen est-ce que leen ci un tamit euh, pour yéen ba ngeen ko seetaane wala seetaanoo leen ko. si man personnellement seetaan naa ko. Mhm. seetaan naa ko mais bon. est ba ngeen ko seetaanee mais attends il faut ñu xaw a. non naturellement di nga tiit boo mhm. déggee lu mel noonu mais bon comme dundagoo ko dundoo ko. Mhm. yow euh, tu ne te sens pas concerné tu n'es pas concerné parce que dundoo ko. Mhm. du yow la daal mais bon li ci kanam daal mu ngi fi ñu xool. mais ñun pour le moment dundaguñu situation boobu. d'accord amee lu man personnellement amee lu ñu ma dara. amee lu ñu la dara non dem si kiis bi tuuti laaj la question yu banal yooyu. <laughs> waa bon ci tàggatoo bi déjà dama leen di remercier ci invitation bi. Mhm. di remercier képp kuy fan su Antoine di la béggee lu bëree bëri. Euh, di nuyu sama collègue yi sama collègue de service di nuyu sama gars yi waa koñ ba waa FIFA. Mhm. di nuyu sama famille bi yëpp. ñëpp daal di nuyu waa infidèle bu baax a baax a baax su ma nee infidèle nag even prod ba ci suuf laa wax famille bi euh, acteur yi équipe technique bi staff bi ñëpp daal bàyyiwuma kenn. ngeen marié nag yow ak si deuxième saison bi. ah wait and bu ko ci door de. waaye wait and see. <laughs> Ah, waaw waaw <laughs> de. alors def.